bokki taalibe cheikhana Sidi Ahmed Tidiane ñu ngi ñëw ak yéen indi leen insha allahu taala benn programme buy waxtaane dundu mawlaana cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak ay saxaabaam yi nga xamante ni ànd nañu ak moom xulafaa am yi ak muqaddamam yi ak mbooleem ñi nga xamante ne ay wasa it lañ yu dox suñu digganteeg Seydina radiyallahu anhum ajmain Mawlana Cheikhana euh, ci moom la ñuy tàmbalee ndax xam ngeen moom tariqaam bi nga xamante ni sos na ko maamam yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa jox ko ko tey jii fépp foo xamante ni diine islaam bi àgg na fa tariqatu cheikhna Sidi Ahmed Tidiane àgg na foofu kon war nañu xam cheikhna Sidi Ahmed Tidiane yi moom mooy kan kon bu ñu laajee kan mooy cheikhna Sidi Ahmed Tidiane ñu ni ah moom kat sëtu yonent yàlla muhammadin la sallallahu alayhi wa waaw moom mooy kan ñu ni moom la ñuy daan dàkkantalee abul abbas lu tax ñu dàkkantalee ko abul abbas ndax dafa tudd ahmed kunyatu ahmed képp koo gis mu tudd ahmed dàkkantalam mooy abul abbas waaw moom ndax am na ku wax ci moom wala am na ñu bind ci moom ngir wane ni moom mii kat mooy Ahmed mi nga xamante ni moom la ñu tuddee Abul Abbas ma ne la ah kay xam nga am na waliyu yàlla bu mag bu ñuy wax Seydi al Arabi al Xaatimi ci mag ñi la bokkoon moom cheikh Tidiane ci boppam daka daan woowee naan ko cheikhul akbar ndax dafa bokk ci guuru yàlla yi nga xamante ni bind nañ ci cheikhana Sidi Ahmed tijaan ba wax askanu cheikh Sidi Ahmed Tidiane te fekk na cheikhana Tidiane yi juddoogul dese na ko pour mu juddu juróomi téeméeri at ak juróom fukki at ak juróomi at muy cinq cent cinquante cinq ans avant Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane di juddu ci la Sidi al Arabi ibn al benn téere tuddee ko Futuxaatul Makkiya taalif beneen téere tuddee ko Anqaa'u Maghrib ñenn ñi naan ko Anqaa'u Maghrib ak lu ci mënti xew boo demee ci ñaari téere yooyu da ngay fekk moom Seydil Arabi muy expliquer saaxibul xatmil wilayati tijaani jublu ci nag cheikhana Sidi Ahmed Tijaan di wax ni moom cheikhu Tijaan dana juddu ci ak bu ñuy tuddee aam chanaq aam chanaq mooy lan mooy mille cinquante te bim ko waxee moom dafa indi dakkantal mu ni kooku nag ma ngay tudd abul abbas kon ci la ñu xamee ni ndekete boroom maqaama bii muy bëgg a wax kii muy junju bëgg koo wax te ñemewu ko feeñal ahmed la nar a tudd cheikhana sidi ahmed ak tijaani am ay mag am ay rakk كان شي يوم تدو احمد مومو نيو تدو احمد كون دنج كوي داكان تليلان ابو العباس كون هو احمد بن هو احمد بن محمد المختار محمد المختار ابن احمد ابن محمد بن سالم ابن ابي العيد ابن سالم ابن أحمد الملقب بالعلواني ابن أحمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد الجبار ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن إسحاق ابن علي زين العابدين ابن أحمد ابن محمد الملقب بالنفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبتي سيد الشباب شباب أهل الجنة ابن إمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله مام قاضي ما جختك ونحو الشرف الطيني من حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد يولن وخلي تعرب ده ديقنا غني فاطمة فاطمة موي دوم يننتي على محمد صلى الله عليه وسلم دن ما بقى وحني ما موي مامي يننتي على موي مامي شيخنا سيدي أحمد التجان من لا هكاي فاطمة مين موج الحسن حسن مو من حسن السبط حسن السبط ما حسن مين خمن تاني موم ما تاو فاطمة أك علي بن أبي طالب تخكاي ما وخلا علي بن أبي طالب إن أنت بواخنا حديث من سما لير أك سيدنا علي بن أبي طالب تأزل ño ànd jaar ci adam aadam wuñu ba ci abdul muttalib man ma génn ci abdallah mom mu génn ci aba talib suñu ñaari leer yi dajé dajawaat ci hasan ak husayn radiyallahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayidina xasan moo jur ku ñuy wax xasan al ñoom ñaar ñii nag ñoom la ñuy tuddee waxambaane aljanna xasanil musanna mi moo jur ku ñuy wax abdillahi alkaamil abdillahi alkaamil mi ngi jógee ci muhammadi nafsi zakiya muhammadi nafsi zakiya moo jur ku ñuy wax ahmed ahmed moo jur ku ñuy wax zeyn al abidin zeyn al abidin moo jur ali علي موجود إسحاق إسحاق موجود إدريس بومك إدريس بومك موجود كوني واح إدريس مونداو كوكو عبد الجبار موكجور عبد الجبار مو عباس موكجور عباس عبد الله موكجور كوكو علي موكجور علي مو أحمد موكجور أحمد مو نك أحمد موكجور مو لني داكن الملقب بالعلواني كوكو سالم موكجور سالم مومو أبي العيد سالم محمد كان كننك أحمد كي مختار مختار مومونك محمد محمد مومو أحمد أحمد مومو الشيخ سيد أحمد تداني غنيمة كن موم أسكنم بملاق موم شيخنا سيدي أحمد التجان مو تد ci mbooleem askan yi ndax askanam mi ngi jàpp askanu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama moom laa wax léegi ci qaadi ma jaxate kala suñu maam ju baax jooju boroom xam-xam bu rëy boobu ni laq na moom cheikh sidi ahmed tidiane ci wàllu askanu deratam bi nga xamante ni ko jug aadama euh, la ñing koy askanale Fatimata Zahra mi nga xamanteni moy domi doomi yent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ñu ci jawahirul maani wa bulughul amani fi fayd sayidi mawlaaya abil abbas tijaani dañuy fekk seydi alxaaji ali xarazim barrada mu واما نسبه رضي الله عنه فهو شريف محقق مهم شريف لا بو شريف بوير لا اك شريفا ويرفع نسبه الى مولانا محمد الملقب بالنفس الزكيه ابن مولانا عبد الله الكامل ابن مولانا الحسن المثنى ابن الحسن الصبتي ابن مولانا علي رضي الله عنه ونسبه رضي الله عنه مذكور في رسمهم عند أوائلهم فلم يلتفت سيدنا لذلك لما هو عليه من الجد والاجتهاد رضي الله عن شيخنا سيدي أحمد تجان أسكنم مع ممي دن كدان بند جمنا بنك دي nekk نكت ñoom ci askan wu rëy wi ci askan wu euh, tedd wi ci askan wu baax wi ci lañ bokk waaye Seydi El Hadji Ali Harazim nee na Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane musul gestu di wane ni moom ab shérif la du doxewu ko waxewu ko lu tax ndax dafa am loo xamante ni moom da ko bëggoon ci boppam wane rek ni moom jullit la jaamkatu yàlla la jàngkat la dafay yem ak nit ñépp ci gëstu ci liggéey ci jaamu yàlla comme ni ko ñeneen ñépp di defee waaye musul gëstu ay baayam wala ay maamam moo tax mu ni walam yaktafi بما هو مذكور من الآباء والأجداد موم يمرك رك دي تخاو دي خول ولا ميجستو غستو لي نكوي تي اي بايم اك اي مامم والرسوم والاخبار الاعيان والاحاد حتى سال سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم في كل نفس مشهود موم واخ نانكو ni ko sa askan nangam la surtout yonent yàlla Muhammad nga sallallahu alayhi wa sallam waaye mosu koo gestu li ñuy bind liñ koy jox ci ay xibaar mosu cee taxaw di ko waxtaane lu dul mu laaj maamam yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci lu leer mu wax ko ni ko an nasabihi wa hal huwa min al abnaa'i wal awlaad ومن الآل والأحفاد فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال له صلى الله عليه وسلم نسبك إلى الحسن بن علي صحيح مولانا الشيخ سيدي أحمد تيجان radiyallahu anhu dafa laaj yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko daal bàyyi de ñu ngi wax maam yi bind nañ di wax lu jëm ci suñu askan ndax man askan bi bàyyeeg maam yi ba ci yow ndax daggul mu ni ko yow sama doom nga ci dëgg sama doom nga ci lu wér sama doom nga bi maana sama sët nga mu répété ko moom sallallahu alayhi wasallam sallama ñetti yoon ni ko sa askan ba ci xasan ibnu ali lu wér la وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوجود يقظة لا مناما كشيون بينك شيخ سيد أحمد تجاني رضي الله عنه laaj maamam yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa bul jàpp ne da koo gént de déedéet bul jàpp ne dañ ko ko nettali noonu de déedéet da koo laaj mubasharatan fekk na boobu mi ngi yewwu nekkul di nelaw nekkul di gént nekkul di dajjant loolu nag teraanga la boo xamante يلا سبحانه وتعالى موقع دفل شيخنا سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه موتخ برم تيري بتي جواهر المعاني مني وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوجود يقظة لا مناما وبشره صلى الله عليه وسلم بأمور عظام جسام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم مولانا شيخنا سيد احمد تجان لي ليرنا ليغا خمانتني ني بري باتاي جيني نيغي واخنان شيخ تجان دو شريف دو سوتي نانت محمد صلى الله عليه وسلم واي بول ني فاتي مكو ني سيدنا علي بن ابي طالب اكلنا صحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين دنجان جان واه واه جسيو سيو نيتكي دا فوارا خم اسكنم دا فوارا خم فيم بوك تي لولو تي غاي مانا دوخالي نيك ولا ترانغا سي ديغنتي اك ساي بوك نيت كو نيك فيغا بوك وار نغا كو خم te buñu jàngé jàngee ci taarix dañuy fekk yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñukay limay ñukay limal ay mamam ba ci adnan sayyidina abubakrin ñu koy limal ay mamam ba fi mu dajé ak yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam سيدنا علي بن أبي طالب كذلك سيدنا عثمان بن عفان كذلك سيدنا عمر بن الخطاب كذلك أكسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إشمعين نبري تنيوم دنن لوح سين أسكن بكي فين دجيك ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم ينالا كي قريشي لا كي بنو سعد لبك كي بني خزيمة لبك كي بني كذا آه، بني أسد لبك كي بني نعم لبك kii banu maxzuum la bokk ila axirihi loolu mbaax la woon ci arab yi ba ci tey diini boo ñëwee ci suñu réew mii di Sénégal mboolem suñu maam yi dañ lay limal seen askan ba fi nga xamante ni foofu la seen askan yem ci liñ ci xam su ko defee Mawlaana Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane lii mooy askanam ni sëtu yonenti yàlla muhammadin la sallallahu alayhi wa sallama bu ñu xoolee moom jëmmu boppam digganteem ak maamam yonenti yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama danañ fekk na am na ñaar fukki maam ak ngeent ñoo digganteem ak yonenti yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daan deg ben benn borom xam-xam mu naan ñaar fukk ak ñeent mooy 24 moo tolloog 24 heures lolu nak amna luñ ci jàpp ni dal 24 mom yàlla moko def mu nek 24 heures waye daan na wax tamit ni laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah boo ko xoolee 24 xaraf la ndax laa ilaha illallah douze la muhammad rasulullahi douze la mu nekk vingt quatre muy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ñu ni moo jàpp maami cheikhana sid ahmed tidiane radiallahu anhu ngir wone rek ni cheikhana tidiani radiallahu anhu moo yore mbootu laa ilaha illallahu muhammadun rasulullah mawlana cheikhana sidi ahmed tidiani رضي الله عنه askan wi mu bokk di ay di ay sharif bu ñu ñëwee ci côté yaayam kadalika sëtu Mohamed Sanusi la bu ñu ñëwee ci papaam wax nañ léegi askanam ci diggante papaam daan nañ ko wax sax moom papaam bibnu amr ñii naan bibnu umar ndax lan ndax meuna jaamu yalla ak meuna euh am xam-xamam bi mu amone xam-xam ndax dafa bok ci askan wo xamanteni askan wu jàng lañu wo askan wu ragal yàlla lañu woon askan wu dan jaamu yàlla lañu woon ba yàlla defal len teranga gu tolni may len dom ju melni مولانا mawlaana سيدي احمد ahmed رضي الله عنه كن su fekkente ne comprendre nañu bu baax damay wax ni huwa abul abbasi ahmed ibnu mahammad ken du wax mohammed papay cheikhana sidi ahmed tidiane mim bu njëkk bi dañ koy fatha comme ni ñuy fatxaaye miimu ñaareel bi mahammad ñu bari nag dañu koy gis ñu bind ko xëy na liñ ko maasul moo tax ñu jàpp ni muhammad la waaye bi fatxil miimi da ngay wax ahmadu bnu mahammad bi fatxil miimi arab daan nañ ko def ngir lan ngir bañ a wax rek muhammad tur wi mat sëkk jagoona turu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci xorma nga am sa doom nga ni ko muhammad ba pare teg ci dara loo xamante ni yelluwul jaaduwul nga teg ko ci tur bi moo tax euh, ñenn ñi dañ daan wax ni mahamdi mahamdi mahamdi ngir rek xormaal tur wi bañ a wax muhammad ndax riyaay bi ak lu ci nekk ci sirru ci ci mbóot تترو محمد كان هو أبو العباسي أحمد سيد أحمد تداني بل لو أخيني لا أحمد لا تدو خلا كان سقل دينا دم تماما يننتي على محمد صلى الله عليه وسلم ترم تكو أسمان أحمد له من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد نحت جانغنا القرآن فنبي الله عيسى دي جانغلي نو إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ينتبي صلى الله عليه وسلم ترم تكو أسمان ينكدون روح أحمد واي تكو سوفسي نكوي واي محمد ستمينك بارنا نتود أحمد واي تي بني أحمد رك سقلتكم ينجكدم واي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين لولاك بين benn junj la rek ينيب war nañ ci bàyyi xel ne lu tax cheikh na sid ahmed tidiane ñew tuddu ahmed ah ah lolu junj la te mën nañ ci wax nak lu bari waye comme dañoo nek ci waxtaan wo xamanteni insha allahu taala dañ ko nara a yaatal danañ ci am luñ ci ñewaat ahmed ibnu muhammad ibnul mukhtar ibnu ahmed ابن محمد بن سالم ابن أبي العيد ابن سالم ابن أحمد الملقب بالعلواني ابن أحمد ابن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الجبار ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن إسحاق ابن علي زين العابدين ابن أحمد ابن محمد الملقب بالنفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبتي سيد شباب أهل الجنة ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لرنا نن شيخنا التجاني رضي الله عنه مم ست ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم كن نيكو خمول وون نن كو خم ñi jappon lenen ludul lolou lañ jàpp nañ ko bàyyi te xamni ni cheikhana sëtu yenenti yàlla muhammadin sallallahu alaihi wasallam lolou moy côté bayam amma yaayam yaayu cheikhana sidi ahmed tidiane fa hiya aishatu bintu abi abdillah محمد بن سنوسي التجاني واو بابا ملوم تدو ngani ma Muhammad يا يمنم تدو غني مع عائشة عائشة نعم عائشة بنت عبدي أبي عبد الله محمد السنوسي نبقى مني سنوسي آه شريف له برم أسكن wu rëy la woo xamante ni ñëpp d'accord nañ ci ni sëtu yonent yàlla muhammadin la sallallahu alayhi wa sallam moo tax dañ ci yokk asanusi attijaani nisba dañ koy askane ila qabilati bani tuujiin ñi naan tuujiin ñi naan tujaan ñooñu nag moom la ñu wax at tujin ñooñu wax al madawi nisbatun ila qaryatin ayni maadi aynu maadi dëkk la bu nekk ci biir Algérie benn benn palaas boo xamante ni maami cheikhana Sidi Ahmed Tidiane bi ñu doon wax sànq muy ñeenteelu maamam Mohamed Ibn Salim kooku moo njëkk a ñëw aynu maadi huwa awalu man qadima ila ayni maadi mu sax foofu nga gis ni kon ay maamam yemuñu ci am askan wu sell rek waaye nag def nañ dara ñeenteelu maamam bi moo sos dëkk bu ñuy wax aynu maadi bi ngeen di dégg tey Seydina Cheikh Sidi Ahmed Tidiane juddu fa léegi nag boo demee dangay gis ni maamam yi jaar nañu Tunisie jaar nañu Maroc te ñu ngi jógee fële ca baytillahi alxaram ca makkatal mukarrama wàcc jaar fa ñu war a jaar ba agsi nekk ñu woon rek ay nit ñoo xamante ni dañoo bàyyi noonu rek seen askan aju ci askan wi rek déedéet daan nañ liggéey daan nañu wër di tukki ba samp nañu dëkk tey ba seen bañ am fa sët bu fa juddoo muy Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa arda wa amin dañuy taxaw tey rek ci jàngale askanam wane ni yaayam ab shérif la tudd Aïcha papaam tudd Mahamad moom mu ñëw tudd Ahmed lii nañ ci jàng rek ñu xool exactement boroom tur wu rëy tur yu rëy yi daje Aïcha kan mooy Aïcha احمد كان موي احمد كان موي محمد كون لغي خم ناني كان موي شيخ سيد احمد تجاني تي اسكنم كدفه دما لين جوخ داجي با يون بي دي نيوات ان شاء الله تعالى ني كونتيني سيني وقتان بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Thank you.